li si yéene kaay yi ginnaaw tukkim ne mekk ba mu amaloon sa Thiès ak sa Tamba président Macky Sall ma nga sa Sédhiou de comme ni mu ko amalee woon conseil des ministres décentralisé si ñaari dëkk yooye benn at des ñu jëm ci élection présidentielle bi ñu jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atuma 2024 bés bi la journée président Macky Sall teeru nañu ko de ndax démb foo sànni mbàkk mu takk comme la amoon sa Thiès benn dëkku ñaari gaar la ñooñam yi tullantiwaat démb sa Sédhiou xool sedd na démb sa Sédhiou de yéene kaay bi ne nga yëg ak nga ñàkk a yëg conseil des ministres ëllëg ci àllarba bi la ko nar amal ci fukki waxtu ci suba si Sud Quotidien ne ak lu coow li bari bari am na ay chantier yu koy xaar moom njiitu réew mi Macky Sall te chantier yooyu noppeegul ba tey te xaar bi yàgg na de te ponk yi bokk na ci lu ñu koy xaaree moom njiitu réew mi président Macky sàll ngir mu andi ci ay saafara nu mu gën a gaawee bokk na ci xëyu ndaw ñi jàng ak jàngale mi dem bi ak dëkk mi nu mu gën a yembe ak liggéey bi ñu sumb te ba léegi te bëgg ne na lépp ay médecin yu qualifié maanaam yu xereñ te lépp ay bëgg-bëgg yi nga xam ne askan wi bëgg neen mu saafara ko ni mu gën a gaawee source aané Sédhiou kay am neen gan gu mët gan moom président Macky Sall démb sa Sédhiou teeru neen ko comme nu ñu teeroo buur te dina fa am juróomi fan ngir mu man faa waxtaanee doxalinu dëkk ba ak xool lépp lu fay gàllankoor ngir mu dindi ko te teg ko ci yoon ngir mu jëm kanam yéene kaay bi ne la amoon démb sa seeju campagne dëgg la laataa élection présidentielle yu ñoo dëdmal yéene kaay bi ne président Macky Sall de door na ay campagne ba nopp libéral libération naan démb de président Macky Sall libéré na xool yëpp te naan il faut ñu laqati dëkk yi xooli leen ndax sénégalais yemut ci ndakaaru rek le quotidien na en tout cas tukki président Macky Sall sa Sédhiou démb responsable politique yëpp fa teew te mën na ni wax de ci guerre des pancartes dëgg la ñu nekk te lu gën a doy ci mbir mi mooy gan yi ñu amoon démb Kolda la ñu fanaani ñoom ñëpp ndax Sédhiou amul dara li témoin ñëw di ko témoin naan président Macky Sall démb sant na gërëm na te di gën a fësal bëgg-bëggam ci réew mi yéenekaay bi naan sëriñ daara ya ca ñoom ñëpp ci njiitu la sëriñ Abdou Fatah Mbacké dajee nañu ak directeur des emploi Pape Modou Fall l'espoir du Bawol nekk président daal moo neex te wóor seen dajee mooma dee moom Pape Modou Fall na ba prox ndollal Sénégal émergent ak ngëneel yu mu am dal di ko toj faram fàccee ko ci kanamu sëriñ daara yi yéene kaay bi ne ginnaaw seen dajee boobee ñoom sëriñ daara yëpp ñu ngi naan ñoom de pare na pour jàppale kii di Pape Modou Fall l'espoir du Bawol turbine yéene kaay naan ma Bougane Gueye Dany Mimi Touré Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall Bassirou Karim Meïssa Wade ñoom ñëpp feeñ booloo takku ba dëgër seen bëgg-bëgg bëgg mooy tëbal président Macky Sall ci bopp réew mi Ousmane Sonko ci wal fajari naan Sénégal ñoo wan ginnaaw président Macky Sall 24 heures na njiitul Pastef bataaxal bu sap la jagle communauté internationale bi ngir yéebaane njiitul réew mi Macky Sall yéene kaay bi ne Ousmane Sonko ak i ñoñam wër ndomb international la ñuy def président Macky Sall yoor yoor di ko yoor yooroo na Ousmane Sonko bataaxal bu saf sap bindal comité international ngir yéebaane président Macky Sall Ousmane Sonko naan njiitu réew mi Macky Sall mooy ennemi dëgg démocratie bu Sénégal moom njiitu article Pastef na président Macky Sall mooy ennemi dëgg ci liberté politique ci Sénégal te jàmm ji ci réew bi saa yu salfaañoo moom la te nag saa yu dëkk bi amee ay jàmmaarloo loxoom génnu ca Ousmane Sonko ne sama baat ca kaw ndax moom président Macky Sall bëggul jàmm te lépp lum ñu woo rek dinañ ko ci wuyu si problème yaa ngay démarré de le témoin na Ousmane Sonko ma ngay yéebaane président Macky Sall ci biti réew de ndax ni muy jàppee waa Pastef mu mel ni tulle ak màlle la bëgg mu dakk l'info laas ak le tribunal Ousmane Sonko de day jaay président Macky Sall ci biti réew Sané ginnaaw lu ñu doon lam-lamee ci réew mi ci mbirum Sweet Beauté avocat Ousmane Sonko yi naka léegi saisine nañu Cour suprême ginnaaw mbir yi ñu yóbbu ci kanam chambre criminelle yi ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ci kanam ëttu attekaay bi la témoin ne bu dee Déthié Fall fa samp ndëndëm laas ne Abdoul Mbaye wàllu taxawaalu la nekkee ngir jàppale yeneen i naataangoom ngir ñu samp seenu ndënd ci élection yu ñu dënmal yéene kaay bi ne keneen ku samp ndëndëm ba noppi di Al Assane Niang borom njiitul waxeef mi ngi naan gis neen naan ndox dal di tëdd ndax lépp luy dund fa seer yéene bi ne lépp loo xam ne mu ngi ci wàllu jënd ak njaay bul jege bu laal la tudd ndax lépp fa seer moo xam suukar ceeb diwlin ba ci soble lépp a seer ba jéggi dayoo askan wi nag ñu ngi yooxu wëllu te naan lii war nañ xoonaan li ni mel libération naan benn soirée moo amoon a mi dina Sabax waaye daal musiba naaru laay daal li ñu fa nemmeeku ndax benn élève buy def terminal la ñu fa jam paak mu dal di faatu bakkanam ak lu ci mënta am daal yal yàlla defal jàmm